ballon bi téye bal bi xam nga téye xam nga lu may wax téye bal euh, maanaam foo xam ne day am attaque rapide ak attaque place dañu xam moment bi ñuy defee attaque rapide ak attaque placée et aujourd'hui aujourd'hui tey jii ma ne su ñun malheureusement ñun suñu junior yi ak suñu cadets yi ñoo dàq football suñu senior yi collectif laa wax wax ma individuel de collectif ñoo leen dàq football parce que au moins dañuy dem A dem B dem D dem ba Z. seigneur yi. dañuy tëb ñëw Z il faut dire la vérité ah non mais non non. delluwaat F ah après delluwaat F waaw delluwaat jaxase doo xam sax alphabet bi duñ ko respecté mais c'est ça mais mais ñi nekkoon démb man man boog. man boog man man bi ma seetaanee. c'était séduisant dama toog xool ma ci man ma xam ne que ñii. vraiment ñii comme ni ngay waxee dafa am benn processus boo xam ne dañ ko topp. et loolu tey jii vraiment lu baax la. on reste avec euh, Malick Daaf euh, Cheikh Tidiane Gomis il était sur les deux fronts nekkoon na Jaraf. Mm-hmm. nekk na avec les cadets tey ka Jaraf même si l'équipe a gagné à Harare sans lui mais il a fait la préparation mm-hmm. avec les Jaraf il faisait en même temps la préparation avec euh, les U17 mais la performance est la mm-hmm. Jaraf qualifié na. Euh, équipe U17 qualifié na. waaw xam nga ci technicien boobu. waaw euh, moom laa lay expliquer il faut que ñu xam affaire Malick Daaf euh, ay résultats rek def en petite catégorie deux fois vice champion d'Afrique U20 ak mm-hmm. Mm-hmm. il ne faut pas oublier ça. Malick Daaf c'est lui encore qui revient mu jëlee tamit ñii jël deux fois. tournoi UFOA bi qualifié benn yoon euh, ki bii mooy deuxième qualification Absolument. donc ce qui veut dire Malick Daab kenn waxatul kenn kéewatul euh, euh, maanaam ay ay ay ay ay ay xarañteem ci ci côté boobu bon dafa amoon nag benn problème problème bi mooy que y avait le jaraaf y avait le kii et dafa tombé compétition yi dafa tombé dégg nga ba tax na. il fallait faire un choix. waaw il fallait faire un et surtout fédération sénégalaise de football génne na maanaam benn dogal ba saa ne. léegi nag mars à partir de mars. da ngay tànn et moom mars jotagul moom mu xam ne mars la coupe d'Afrique bi ah léegi nag foofu nag il était euh, kii dégg nga il fallait que problème euh, moom mu choisir moom nag dafa choisir topp li parce que fii dans cette affaire là foofu nag man foofu nag man man man foofu laa xawee am ay euh, kii parce que Malick Daaf qu'on se dise la vérité li muy gagné Jaraaf gagné wu ko en équipe nationale jaraaf li mu fay gagné moom mii mu ngi may dégg xam na li may wax li mu fay gagné gagné fii pigiste la fii salarié la. fii dafa am salaire. léegi nag mu bàyyi kii bi nag euh, mu euh, léegi mu bàyyi salaire bi léegi mu ngi dem léegi nag man c'est la laay interpellé nag la fédération sénégalaise de football. ah non ça c'est ça c'est sa grosse connerie ça. ah je si c'est tele tel le cas. Euh, c'est une grosse connerie moi moi c'est c'est ce, ce raisonnement-là si Malick l'a fait. Mhm. s'il choisit d'être pigiste à la place d'avoir un salaire assuré. Non, je pense qu'il a été dit. au début, je faisais partie de ceux qui disaient que dañu war a permettre suñu ay entraîneurs comme amuñu si c'était la crème la bariwul woon. Mhm. ñu permettre leen et ñu nekk entraîneur équipe nationale. et ñu nekk aussi en même temps yore club. parce que du guleet ñu koy gis ci àdduna bi. sauf que dans nos pays les gens ont constaté qu'il y a souvent des conflits d'intérêts. fii lu ci laxasu moo bëri si vous vous souvenez très bien y a même un journaliste sénégalais à Demba Diop Aline Badara Koulibaly ABC à l'époque pour ne pas le citer qui était à l'AS qui est venu qui a osé poser cette question à ndem si yàlla euh, Karim Séga Diouf on a constaté que vous privilégiez dans les sélections dans la sélection vous dirigez les gens qui sont à Yarax Tingé je crois c'était Yarax Yaakaar mais ça ça a terminé en pige là ils nous ont les journalistes dans les vestiaires moi j'étais là j'étais encore reporter donc ça à un certain moment donné les gens ont fait le voilà on dit il faut qu'on comme tout le monde suspecte tout le monde parce que là tu es en train lui ce que, le son raisonnement moi je le trouve très très linéaire oui. c'est-à-dire euh, euh, Daf il s'est basé sur deux centres de formation qui nonobstant la Covid ñoom dañuy tàggat seen ay booy yëpp mu dem tibb foofu ay joueurs mais d'autres pauvres qui sont de Matam qui sont de Ziguinchor qui vont se dire vont se dire mais pourquoi on n'est pas venu chez nous chercher mais la réalité c'est que quand ñii nii ñoo gën a structuré saa aussi loolu mooy dëgg bi ñoom ñoo gën a structuré donc boo nekkee di ŋarale ci yenn yooyu noonu gars yi di suspecté que peut-être mun nga jël joueur jaraaf nga bàyyi joueur Tingéej donc dangay ngay bàyyi club bi suspicion bi mooy tax nag ci fait maintenant au choix maintenant si choix bi man foofu laa mënul comprendre su fekkente ne noonu la demee mm-hmm. parce que tamit nag euh, il faut qu'on se dise euh, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche Malick Daf magum jëmm la il a sa famille à nourrir fédération sénégalaise de football bu ko nee da ngay tànn diggante équipe nationale bi ak jaraaf il faut que fédération bi di ko jox salaire chaque fin du mois. fa laa doon ñëw. non non non foofu laay wax c'est pourquoi je dis. Mmh. la logique de Didier de Cheikh Tidiane suis jusque là mais euh, le caractère pisiste moi je ne peux pas comprendre Si c'est ça, je ne peux pas le comprendre. Je, nous sommes journalistes, nous devons faire des investigations pour comprendre exactement est-ce que Malik va être payé chaque fin du mois à l'image de Aliou mm-hmm. À l'image d'Aliou Cissé, mmh. il aura des trucs de, de cotisation sociale yëpp. Mmh. caisse de sécurité sociale, IPR, e IPRES, euh, IPM, e tout ce qu'il lui faut. Il lui donne des garanties. Parce que munoo maa wax ne il faut ma tànn diggante Jaraaf comme Jaraaf aujourd'hui quand même c'est un boo nekkee entraîneur Jaraaf c'est sûr que tu n'es pas l'entraîneur de Champagne ou tu peux être payé par euh, par SMS ou bien par Orange <laughs> non parce que loolu moo fi nekk daf aussi Nicolas <laughs> nañ wax diina ah, ko mu leer nañ donc Cheikh Cheikh Seck peut payer un entraîneur Tout à fait. s'il doit choisir parce que quand même la vie sportive d'un entraîneur ce n'est pas le bon vouloir du président non c'est lié étroitement à tes résultats tout à fait Malick Daf lu mu musoon a nekk très grand joueur yëpp. def jaloore Gorée Augustin Senghor nekk président fii bu deful résultat ci équipe nationale bi dañ koy dax amul sa wax. ku ci t'appelle Mourinho ku ci t'appelle Lippi ku ci t'appelle tuddal lu la neex. tu fais des résultats on te conserve. mais Cheikh Tidiane n'a pas fait des résultats tu laisses la place mais Ablaye Thiam aussi journaliste sportif. kon yow xamuloo ne. que au niveau de la euh, du football sénégalais. Mhm. y a benn kenn rek benn entraîneur rek moo am salaire. <laughs> non je sais. non non je sais non non non non parce que benn entraîneur pour damay li ma wax dama ne. ñoom ils sont payés par campagne. mais c'est ce que j'ai entendu. loolu laa lay wax loolu laa non non non non jusqu'à une période récente c'est ça. mais bu ñu demee ba wax nit ñi da ngay tranché. merci non attends rek. surtout que Aliou Cissé signe c'est une incongruité sénégalaise <laughs> trois tiers le premier tiers s'appelle Aliou Cissé le deuxième tiers employeur bi s'appelle Fédération sénégalaise de football mais le tiers payeur s'appelle État du Sénégal waaw c'est pas la fédération qui paye Aliou Cissé état du Sénégal sa dërëm sama dërëm dërëm Augustin dërëm Sayer Seck dërëm keneen ak keneen même kii di jënd boîte Albert bi il y un taxe indirecte qui est versée à l'état du Sénégal xaalis boobu la ñuy jël di ko fayee Aliou fédération nag aujourd'hui macha allah war nañu mun a fay un entraîneur. dogal boobu lañ jël. donc su Malick ah, tamit Malick tamit tamit deful Malick ne va pas accepter. non ma préciser peut-être day ndaw nga naan damay dem di nekk piste. ji may fay si campagne jot na. campagne bi bi jeexul après man ma ñëw di tax. on apporte après on apporte un point d'éclaircissement. quand on prenait la décision. il a été carrément dit par rapport au choix qui va être fait c'est-à-dire bu dee entraîneur bi tànn na jël sélection auparavant daawuñu leen fay mais bii yoon boo tànnee ne équipe nationale kese ngeen rek. dañ la dañ lay fay. voilà léegi loolu la wax. ci la ñu naw ci la ñu xam nga ba pare ci la ñu naw xaaral pare en son temps. démarche Koto ba ne tey bu dee loolu am na. bu dee loolu am na coto dañ ko war a def ay rappel parce que le seul a avait accepté en son temps. toog nekk sélectionneur. non kooku c'est une autre question. non rappel si non non la rétroactivité. quand il faut pas qu'on entre dans à une certaine époque Koto à dire on est ah, auparavant. mais la rétroactivité quand même ça c'est un autre problème. ce qui est important aujourd'hui soo choisir équipe petite catégorie. qui perd là est-ce Bali qui perd ou bien c'est le Jaraaf qui perd. mais avant boobu Nicolas avant boobu il faut que man ma wax peu euh, man bi may wax ne. Mhm. damay interpeller fédération mooy que. Mhm. il faut euh, fédération ñàkkul xam nañu réalité wu club bu nekk. Ah, ñu fay toog comité exécutif. Augustin ba wàcc xam nañu il n'est pas donné il n'est pas donné parce am nañu décision yu ñuy jël. te di non am na décision yu ñuy jël devant ah. comité exécutif. te dañuy attends quand ils prennent cette décision est-ce qu'ils ont je ne sais pas est-ce qu'ils vivent la réalité des clubs. d'accord mais mais mais xool ci cas bii laa wax. xam nañ ne xam nañ ne yenn entraîneurs yi fii entraîneur bi gën a ndaw fii.